xaaj bu njëkk bi ci ñaari xaaj yi ay kéemaan ak ay firnde ci mbooloom ñi gëm tey dinañu waxtaan ci ay mbir yu daloon taalibe yéesu yi taalibe yéesu yi ñoo bokkoon xool ak xalaat dañu daan nekkandoo tey dimbalante ci seeni soxla ñi amoon kër walla suuf jaay bu soxla taxawee xaalis ba ñu bokk kook ñi soxla ak góor gu ñuy wax anañaas ak jabaram safira jaay seen suuf ñu denc tuuti ci xaalis bi ngir seen bopp ananias indi li des ci xaalis bi jox ko ndaw yi mu fen ne noonu la xaalis bi tollu waaye Pierre ne ko anañas lu tax nga bàyyi seytaani dugg la ba fees sa xol ngay wor xel mu sel mi jëf ya saar juróom aaye ñett yaa moom sa suuf moom sa xaalis kon nag lu tax ngay fen bi anañas déggee loolu mu daanu ci suuf daldi dee gannaaw loolu jabaru anañas agsi Pierre laaj ko ñaata lañu jaaye seen suuf mu wax Pierre li jëkkëram waxoon Pierre ne ko nak ngeen defee ne mën ngeen nax xel mu sell mi mu ne ko ñi suuli woon sa jëkkër dinañu la suul yow itam noonu jabaru anañaas daanu ci suuf daldi dee li xew foofu daldi siiw ñépp ragal léegi ma laaj benn lan moo rey ananias ak safira jabaram dañu doon jéem a nax taalibe yeesu yi ak xel mu sell mi bëggoon nañu leen gëmloo ne jox nañu leen xaalis bi yépp ñu ngi doon wone lu ñu gëmul yàlla bëgg na njubte gu mat sëkk yàlla daan na leen ndax seen wor loolu dafay artu taalibe yeesu yi ngir ñu bañ a jéem a wor yàlla